taskatu xabaar yu nekk fii ci Sénégal wala sax ci bitim réew yàqamti woon lool ñëwam ci kanamu sabalkat yi ci ndorteel gi la daal di ñëwaat ci dogal gi nga xamante ni conseil constitutionnel daal koy jël. bravo à ces magistrats. ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax magistrat yi nga xamante ni daanaka daal di nañ def seen liggéey mu doon li nga xamante ne ni moom lañu doon xaar ci ñoom wante rek ba tey am na li nga xamante ni des na. le conseil a été très très clair. muy rafetlu li ndaxte jàpp na ni dafay yeesal xar kanamu démocratie bu Sénégal naam nag li ci des président de la République Macky Sall moo ko war a amal. dañu bëgg a def élection que président Macky Sall organisé ko 2 avril mu passer le pouvoir à son successeur ou est-ce que day def leneen li gën mooy mu jox pouvoir bi son successeur. ngir jàmm ak salaam daal di dellu eh, ci Sénégal rawatina ci làngum politique bi yi defan nag ñu bari ñi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo ñu leen di daal di bàyyi eh, ki jiite taxawu senegal eh, di ci ànd naam nag li muy laajte moo di lan moo nëbbu ci suuf. nous nous en réjouissons. nit ñëpp ci ànd ndax lu ñuy rafetlu la. wante li ñu jaaxal rek mooy kenn xamul ci yan anam lañ ko daal di defee ci yan anam daal la négociation yi amee ba ñu mën a génnee yile prisonniers. Euh, processus électoral bi bañ ko dooree ba léegi nag euh, conseil constitutionnel ñu bari ñu koy joxoñ baaraama tuuma euh, rawatina ñaar ci ñoom soxal wàllum guerre ñenn ñi nag jàpp ni faaw ñu daal di jëmmal ab cour constitutionnelle. suñ ko defee dañuy changer loi bi. mënul ne bii moom wéy na jeeg bay wéy na mbuus. suñ doon def it dañuy jéem def des dispositions transitoires. pour annihiler li nga xam ni moom mais boobaa du ñu ko nangu. laaj bi di samp moo di kañ la ñu daal di amal li nga xamante ne moom moo di jongante yi lu ci mënti ne moo ngi jur wax ba tey.